ko def ben joko ko kenn jox kenn ñu avancé joko ko kenn ñu avancé gaay balen balen balen ma leen bàyyi leen mag benn moo des benn moo nga fi duggal papa site njaase yolé bala gay dee mu def ben ben mi nak ah joko ko kenn gars yi noppi leen waay noppi leen man dé sama béré tax na gisuma ñu ci def non non jox ma ben di nga motali ben parce que top 5 la top 5 la indi nga 4 top 5 la waaw ben mo def jox ma rek ñu avancé yeneen a ngi ñëw yeneen question mi ngi ñëwaat. ah ba ma jox la Baboy rek. Baboy man. Baboy mel Balla Beye. Balla Beye non non bàyyi na bëri les lutteurs activité laa wax en activité kooku bàyyi na bëri ancien gloire la association mbëri démb la bokk mbëri yi fi nekk actuellement laa wax. mbëri yi fi nekk. waaw des na benn. waaw waaw ma jox la Bié Dacia. Bié Dacia. waaw Dacia. da nga koy dugal ci juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji. Hmm. ba tey ci question réponse làmb ji wërngal képp ban mbër moo fi dàq xeex. ban mbër moo fi dàq bi na jóg. mbër moo fi dàkk xeex mbër bi dàkk xeex ci làmb ji kan làmb ji nag bëri na mbër yi xeex ban mbër nga jàpp ne moo dàkk xeex ci làmb ji yow ban mbër nga gën a naw ci ni muy xeexee ci làmb ji bëri na mbër yi xeex même boy bii nii nuñ koy tudd jox ma kenn rek kenn dem cuuboon kii dem cuuboon général waay kala ci dem cuuboon général dem cuuboon kii kala ci mooy boy bi dëkk fii Malika waaw waaw waaw waaw kala boobu tamit xeex bu saf la caatu yoof caatu yoof caatu yoof moom nga ko jox xeexam jaar na yoon mais limal ma juróomi mbër yi daaka xeex ci làmb ji caatu yoof ak kan ak kan ak kan caatu yoof ak kan ak kan caatu leen bàyyi ko mu tontu caatu yoof cinq cinq mbër ñoo xam ne seen xeex jaar na yoon seen waaw waaw ah, booy ñaa man waaw ñëwal ñëwal rek ñëwal rek yow. gars yi bàyyi leen ki ngeen di dicté bàyyi leen ko ñëwal ak Modou Lo Modou Lo la col roi des arènes dafa mën a xeex. kooku ñëwal mbaru son la sama rakk ñëwal dafa man a xeex. ñëwal mu des mu des ñett. waaw caatu yow Modou Lo. Modou Lo mu des mu des ñett. damay xalaat ko mbër yi gën a. ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal kaw ba suuf nag kaw ba suuf. Gris la Tigre de Fass. Gris Bordeaux dafa mën a xeex. bokk na ci juróomi mbër yi dàq xeex ci làmb ji. mu des ñaar. Tafatin koram boobu. Tafatin la leader de Bawol Bawol. bokk na ci juróomi ci làmb ji. Mhm. mu des benn. Malick Niang moom mën xeex moo génne làmb ji. Malick Niang bu Yoff ñii ñoo dàq xeex ci làmb ji. Mhm. ba tey ci question réponse làmb ji wërngal këpp ban mbër moo ci gën a ñeme entraînement. ban mbër moo ci gën a ñeme entraînement. waaw. ñun fii ñoo gën a ñeme non kenn nga may jox kenn kenn bul jaxase mbir mi kenn gaay gaay bàyyi leen bàyyi leen ma tànce booy bàyyi leen ma bàyyi leen ma wàccee ko bàyyi leen waa tamit nag bàyyi leen ma rek ban mbër moo gën a ñeme entraînement ci làmb ci kan nga koy jox kan nga koy jox benn mbër ma jox ko benn mbër waaw après nga limal ma juróomi yëpp waaw man papa laa jox moo gën a ñeme entraînement papa site papa site bu jaxaay waaw moo gën entraînement ci làmb ji entraînement ci làmb foo ko du ànd ak mbër di dellu ginnaaw day dem ba jeex tànk punka li ngay gis ni ku topp si ginnaawam da ngay wàcc Papa bu jaxee waaw boo toppee si ginnaaw da ngay wàcce de. dafa ñeme entraînement doon terrain mooy tax muy am victoire. Hmm. kon du mës a kon du mës ñàkk combat. non non non Papa Cité moo gën a ñeme entraînement ci làmb ji. Ah, d' gën a ñeme entraînement ci làmb ak kan ak kan. juróomi mbër Sa Thiès tamit bokk na si. Salif Sakho le ah. virevoltant bokk na ci juróomi mbër yi gën a ñeme entraînement ci làmb ji. Eh, toog ci tànk ñaar mu des ah, ñett Ama Balde Ama Balde pël bi. bokk yi gën a ñeme entraînement ci làmb ji. mu des ñaar Mhm. mu des ñaar. mu des ñaar. des ñaar. Papa Cité Ama Balde Sa Thiès nga joxe. Papa Cité Ama Balde Sa Thiès. waaw mu des ñaar. ak Mama Lamine. Mama Lamine numéro 2. waaw bu jaxaay. bokk na ci juróomi mbër yi gën a ñeme entraînement ci làmb ji. mu des benn. benn bi moom buggoon naa la xaaj jox benn mbër bu mag. mais foog ma demaat ci yoole ñëwal day toog ci tànki ba mu saf dafa ñeme entraînement daf koo ñeme yoole yoole bu jaxaay bokk na ci juróomi mbër yi gën a ñeme entraînement ci làmb ji ba tey ci question réponse mhm. question réponse ba léegi làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi ëpp fit non ban mbër moo fi ëpp fit waaw ban mbër nga gën a naaw ci am fitam ba nii sax moo fi ëpp fit Balla Gaye 2 moom moom nga ko jox Balla Gaye moo fit ci lamb ji lamb ji wërngal këpp Balla Gaye dégg nga ko jox question suivante bi nee nga ñun man bokkuma si yow bokkoo yow bokkoo yow maa ñu ngi loos waaw non coow jiwul yow yaa ëpp fit yow yaa dàq bëre yaa ëpp doole yaa dàq waaw yaa ëpp fit waaw mais mais yow bokkoo yow yaay génnee ma si waaw ma leen dugal mais maa ngi seen kaw ñoom ñëpp coow jibul ba tey ci question réponse lamb ji wërngal këpp li mën ma juróomi mbër yi ëpp fit Balla Gaye di ak kan ak kan Balla Gaye de bu lem fil bi. Balla Gaye de am na fil lool. waaw ak ak Zarko. Zarko. Zarko bu Grand Yoff. Ah, bokk na ci juróomi mbër yi ci làmb ji. du bàyyi xel ñëwal mu des ñett. du bàyyi mu des ñett. Zarko. wax de. waaw fit laa wax de. am fit lu Salif dafa am fit. Salif Sakho alias Sathiès. dafa am la. fit bi rëy. fit bu dëgër la waa ne prix génn dox na sa kaw. Modou Lo de. la coon quoi des arènes Modou Lo. da nga koy si juróomi mbër ji. ci ko siy dugal. Hmm. parce ah, day day xool day xool day xool. day xool li day xool. day xulli hmm. waaw waaw waaw waaw waaw. ñëw mën na si ah, suuf ne ne ci kaw. te te gisul amee waaw lamb ji nga ma kan ak kan nga ma jox Balla ak Salif Sa Sa ak pël bi Balde am na keneen ku ma la joxoon Zarko Zarko ah, ak kan. ak Modou la Thion xaalis Sare. waaw ñu ñëpp ci làmb ji tamit da ngeen kii. mais ma laaj rek moo tax ma door ñetteel mais a man maa la man maa la jox cinq maa la ne cinq question suivante bi làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi dàq fecc. fecc. Hmm. xam nga. noppi leen de noppi leen de waaw. kooku dafa mën fecc. waaw waaw. moom laa koy jox taalibe Bamba waaw Siteu bu jàmm gën bu jàmm gën moo daax fecc ci làmb ji fan nga ko teg fan nga teg ne moo daax fecc ci làmb parce que am na ñoo xam ne dañuy dem làmbam Siteu du leen fa yóbbu ngir bëre ambiance am na rek la leen yóbbu ñu dagg billet toog ngir ambiance mu ambiance ñu seetaan ay feem ñu dem ñibbi kese loolu rek moo Siteu dàq fecc ci làmb ji waaw question suivante bi limal ma nag juróomi mbër yi dàq fecc ci làmb ji Ama Baldé dama la koy indil Siteu Ama Baldé Ama Baldé bokk na ci juróomi mbër yi dàq fecc ci làmb ji mu des ñaar ama ak yoole yoole tamit yoole yoole njaase yoole dafa mën a fecc dafa mën a fecc mu des ñaar mu des ñaar mhm. mu des ñaar yaay bàyyi leen ko rek bàyyi leen ko mu waaw te ay mbër rek ah mbër kese ama balde sitte yoole nga fi joxe mu def ñaar waaw ak mor kankang mor kankang kelemele kankang kelemele waaw waaw kankang sama day mor kankang kelemele dafa mëna fecc eh, dafa diggalañ eh? diggalee neer eh? ñëwal mu def ben mu def ben waaw ben bi léegi benn bi les les rek les rek mu des benn benn des de waaw benn bi kan la benn bi kan la benn moo des. benn bi waay benn bi waay. ñëwal. yow jaxaay fi rek am na booy yu mën a ah, am na booy yu mën a. waaw waaw jox ma jox ko kenn rek. mun naa ko jox sax ko keneen koo xam ne dëkkul fii dafa waroon bëre kii nii bi parce que làmb ji mujj yàqu caatu lingeer. muy muy li lingeer. caatu lingeer waroon bëre samedi bi. waaw làmb ji na xam nga ne le dix bi ci la waroon bëri le dix bi la Boy Diop beeg kii bi waaw Boy Diop ak ak ak kii jax jaam jaaxu jox naa caatu lingeer jox nga ko ko bokk na ci juróomi mbër yi daax fecc ci làmb ji question suivante bi làmb ji wëngal këpp ban mbër moo fi gën a yaru ban mbër moo fi gën a yaru waaw ban mbër nga gën a naaw ci am yaram ci làmb ji mbër yëpp yaru nañ déedéet am na mbër yu réew am na waaw am na yëpp yaruwuñ mbër yëpp yaru maa ngi seen biir xam naa naa lu ma la wax lu garaaw laa lay wax am na mbër yu réew ban mbër moo gën a yaru ci làmb ji ban mbër moo gën a yaru si làmb kan la waaw kan na mbër yu yaru waaw mais jox ma ci yow kan nga gën a naw ci am yaram làmb ci moom boo xam ne dafa yaru ba nga naw ko ci gaa gaa yi les les rek bàyyi ko mu naw naa si ñu bëri mais Ama Balde moom Ama Balde yaram daf Ama Balde Ama Balde naw nga ko lool ci am yaram Ama Balde ah. moo gën yaru ci làmb ji ba tey ci question réponse làmb ji wërngel këp ban mbër moo fi gën a réew <laughs> waaw yar bi dama si mayaat beneen mbir bi gën a réew ci làmb kan moo gën a réew ci làmb ji jonga ma ki gën a yar mooy Ama Baldé kan moo gën a réew ci làmb ji ah mën naa kon am na ne man gisuma yaa mën a sóob yaa jaxaay fii rek am na mbër yu réew jaxaay jaxaay fii am na boo yu réew man naa leen booy seen réewante fenn la buñ takkee jaaj ba nga xam ne dañuy dem foofu moom dañuy réew dof mais à part loolu bu hmm. sigi xool ban mbër moo gën a réew ci làmb ji tontu moo ñu avancé question réponse fii ñu tëj fii a ah, ah, dem ci leneen kan moo fi gën a yaru ne nga ma Ama Baldé hmm. kan moo gën a réew wax ma kii la ñu avancé Ama Baldé moo kan moo ah man de xaw ma ko fi gën a réew. te gisuma ko tamit. jaxaay fi am nañu réew Kër Masaar fi am na mbër yu réew. Kër jàmm gën am na géejawaay am na parcelle. jàmm gën di dem tepp mais ah. mbër yi may gis yëpp yar lañ may wan ak teggin. Hmm. sekk jàmm. Hmm. amul mbër bu ma wan. gars yi nee nañu booy sëy dafa réew. booy sëy seen grand booy sëy dañuy wax la pët nii sëy sëy ñun xam nañ ko waaw réewul man li ma xamee bu ma ñëwee si équipe ba tey mosuma woon loo xam ne lu ñàkk fayda la waaw non waxuma la ñàkk fayda réew laa wax réew mel noonu maanaam man gisuma ko ci man man des mu woon ma jikkoy defe naa de man mu amel ma 3000 francs di ma daw la loolu ñàkk waaw gis nga ay vieux dacia booy yii nii vieux dacia booy vieux dacia réew loolu liñ si gis. Mama Lamine numéro 2 Mama Lamine numéro 2 waaw Mama Lamine numéro 2 sax dañ ñoo si gi xool nit Ndiasse yoole billahi yoole wax ko la léegi da ngay ciblé kenn diw moo fi gën a réew wala nga jox sa bopp kon yow la kon yow la waaw man yaa gën a réew ci làmb ji waaw jeex kon yow Aldo yaa gën a réew ci làmb ji làmb ji wër nga këpp yaa si gën a réew merci waay merci jëlal loolu ñu génn foofu njëkk ji bëre fit entraînement gàllaaj ban moo ci ëpp solo ci làmb mën a bëre am fit ñeme entraînement ak am gàllaaj ban moo ci ëpp ci la si këbal jox ma benn bi ci ëpp solo wax ma la ban moo ci am solo ban moo ci ëpp solo laa la wax bëre fit entraînement gàllaaj ban moo ci ëpp solo am bëre bi bëre bi bëre mooy pee bëre bi ah. moom laa def pee mën a bëre mën a bëre moo jiitu doole lu ñuy ut la waa te buñ ko utee rek dañ koy am day ñëw force mais mu ne bëri fit entraînement gàllaaj ban moo ci ëpp solo nga dama bëri man bëri laa jël moo si ëpp solo kon kon yow boo gisee mbër bu mën a bëree danga koy naw dama koy naw si li muy bëri hmm. parce que nga war a bëri ji sa jour combat hmm. ñu woo la téléphone ne la allo fils de Aldo dafa am règlement bu bees bu wàcc hmm. ñu ne la yow sa bëri sa fit sa entraînement sa gàllaaj ñeent yi ñu na la ñett yi nga yobbu lamb ja nga bay fi benn bi wala do beure ban ngay bay benn la yobbu lamb ñett yi nga yobbu nga bay benn ñett yi nga yobbu nga bay benn beure bi fit bi entraînement bi galaj gi ñett yi nga yobbu nga bay benn entraînement bi galaj waaw dama yóbbu bëre ban ngay bay ban ngay bay benn la ban ngay bay ban ngay bay muy galaj gi galaj ngay bay nga yobbu beure bi fit bi yobbu beure bi fit ak entraînement bi nga bay galaj gi nga bay galaj gi lutax mëno bay beure bi parce que dama mën bëre parce que da nga mën bëre waaw lu tax mënoo bàyyi entraînement bi entraînement dama bëgg doole ndax xam naa su ma yokkee doole tuuti booy duñ parce que boo yokkee doole tuuti booy am nañ problème lan moo tax ba mënoo bàyyi fit wi fit moom yàllaa ko ma ñun yàllaa ñëw rek sol ñu ko ñu ànd ak moom di dem yàlla dalee na moo ñaale fit rek am fit dëgg naturel naturellement d' accord ba tax na jour boobu gàllaaj ngay bàyyi mhm. rak ji bi nga dalee bëre mbapat ba arène ban victoire moo la gën neex sa carrière ban victoire moom ma gën neex sama carrière sama première victoire neex na ma torop. yaakaar woon. maa fiche de prési. fiche de prési sa sa première victoire arène. waaw moo la gën a neex sa carrière. moo gën a neex. mais aussi bi nga dalee bëri mbapat ba arène ban défaite moo la gën a métti sa carrière défaite bi la gën a métti ban défaite la. défaite bi ma gën a métti. sa carrière ban defet la. défaite bi ma daanu ni sax xaw na maa métti nii rek. ban moo la gën a métti ban moo la gën a metti am na làmb mbapat yoo xam ne am naa si ay défaites yoo xam ne naxaru naa ko torop. comme sa diggante ak kan. nakaru naa ko trop mais daal sëñ Fallou. garaaw ñu bàyyi mu seet. d' accord ba tey ci question réponse bi nga dalee seetaan làmb ba tey ban ko maa nga dem stade seetaan ko wala nga toog jàkkaarloog télé bi seetaan ko mu marqué la ba mënoo ko fàtte. combat bi la gën a marqué ci làmb ban combat la. combat bi ma gën a marqué si làmb. ban combat la. man nag ay combat dañ may marqué mais combat bébé Diène kii bi rek gàkku deux bi rek daf maa marqué. bébé Diène gàkku deux. gàkku deux daf maa toog. ndax mujj gi dama dem sa xolo dugg si subateeru kii nii bébé jéen yi mhm. di yëngal ambiance bi donc loolu fa demee dalal ay ay ay ñim indi xam jàpp deux bébé jéen ñoom ñaar ñëpp dalal ñi indi yëngal mu gi damaa dem tasak booy dugg foofu noonu di yëngal mooy yëngal boobu oh. Oh. noonu la fa demee affaire bi day dugg sama xol di ko wax la fa demee laa mujj dalaa marqué dalaa marqué ba tey ba tey ci question réponse ah rakk ji euh, ma jën tuuti ci làmb jaan ah, dugg sa vie privée mhm. euh, da ngay seetaan football man football moom man may gis nii xaw ma ban tànkee dëgg ba hmm. ndeysaan nga seetaan football. suba gi nii am na benn boobu waroon jàngal tël. Hmm. tël mu lay jàngal tël. bal bi ngay tël nii comme ça. mu la koy jàngal yow ni nga tool nii bi li ngay commencé jàng tël. non xam nga rek damay gis gars yi di ko ko di def yenn yi. yow yow bi ngay ko bi ngay nekk xale bu ndaw ba léegi naan. c'est que man football lenn ma yitteloon si lamb si si ba ma nekkee xale man lamb lamb moom dama ko doon gëstu. lamb kese. lamb yow rek moo la sonal. lamb ngay cantantu xam nga. cant waaw topp yow da ngay cant waaw kon kon yow cant yi da nga ci da ci sentir sa bopp. baa ma lebal non non bàyyi mu ñëw day ñëw non non da ngay ñëw non non foog. non non non foog foog nga doo tuuti. baa ma lebal loxo. Hmm. baa ma leb ko beneen. Hmm. dinaa la yëkkatal feneen fu dul fii. yàlla baax na ba tey ci question réponse euh, euh, lamb ji non bàyyi ma génn ci lamb ji damay sant sama si di nga sant ñëpp di nga sant ñëpp hmm. fin bi di nga sant ñëpp gërëm ñëpp ébu baari di nga jël sa temps ba tey ci question réponse rakk ji kan mooy sa waykat Sénégal fii kuy way nga kontaan man Baye Pet Baye Pet Baye Pen Omar Pen kon yow retro ngay déglu parce que man du ma déglu musique Omar Pen ngay déglu mooy sa waykat waaw Omar euh, kan mooy sa comédien sa comédien préféré comédien sénégalais yi kan mooy sa comédien préféré comédien ko xam ne boo ko seetaan da ngay reetaan ba solu non non kan mooy sa comédien gars yi bàyyi leen ko bàyyi leen ko mu tànn. sa comédien préféré kan la. jox ma ci kenn nag ñu avancé. ah Aliou Ba. bàyyi leen ko bàyyi leen ko mu tontu rek sa comédien préféré kan la. koo xam ne boo ko seetaanee da ngay reetaan ba tëbi ci suuf. waaw ah, Sanex. Sanex Sanex mooy sa comédien préféré waaw waaw. waaw waaw Sanex il est très fort. mooy sa comédien préféré. waaw moom ngay seetaan reetaan. waaw question suivante bi question de Thiop lan mooy sa plat préféré. Thiop man damay coor mais cere rek. ndeysaan la ciri la ciri kese. oh ndeysaan foor na. dañuy dañuy géem sax leneen lu dul cere mais cere bi sax jour day tegu. cere bi day teew toujours. waaw ndeysaan. la ciri. Mhm. mais yow booy yow sa plat préféré seerul de yow kon fan seeg supporter ko koo seeti mu jënd deux cent cere trois cent meew. lu tegal après mu jeex. booy dañuy indi lu gën lool lu gën a diis lool sax ma ne leen cere rek. Lathiri waaw loolu dama koy dóor nag mais cere kese merci waay kon fan seeg supporter yi ku invité fils de Aldo préparel ko cere eh, rak ji kon daal nga ne doo seetaan football. man non dama seetaan mais équipe nationale du Sénégal bu football di nga ko seetaan. non bu ñu football damay toog. Hmm. laandi hmm. seetaan seetaan. Sadio bu ma gisee ko téye bal bi te xaw ma ko sax du Sénégal waaw léegi da nga may limal cinq joueurs équipe nationale Sénégal cinq joueurs. Sadio Mané Sadio Mané. ak Crépin Crépin non non booy booy booy bàyyi leen mu génne ci boppam Gana bokkatul Sadio Mané Krépin Diatta. Krépin Diatta. waaw Sadio Mané Krépin Diatta. waaw waaw. kii kan kan kooku. Moussa Sow Moussa Moussa yee Moussa Sow yàgg na. Ah, non ñi fi nekk instant bi laa Moussa Sow ay 2011 ba 2012 2013. kooku yàgg na non ñi fi nekk instant bi gars yi gars yi gars yi bàyyi mu tànn ci booy bi bàyyi mu tànn ci booy bi bàyyi mu tànn ci nga wax bokkatul Sadio Mané Krépin Diatta des na ñett waaw Sadio Mané bu tàng boobu booy bu tàng boobu kan Bamba Dieng Cheikh Ahmadou Bamba Dieng mu des ñaar mu des fekk naa ko li bokkatul kooku 2002 la booy yow yàgg nga de yow yàgg nga de booy booy booy no booy waay ay waay booy yaa ngi sot waay booy booy leen moo trois nga am trois Sadio Mané nga am Krépin Diatta Bamba Dieng mu des ñaar ak Salif Keita. Salif Keita <laughs> amoon na équipe nationale 1999. man ko 2000 Salif Keita. kooku yàgg na de. non ki may wax. Salif Keita kooku yàgg na bees quoi. kan la kat gars yi gars yi non Iliman Ndiaye bokkatul gars yi kooku bokkatul. koo leen ko jàppale ak tur boobu bokkatul. léegi man kan ak kan laa waxoon. Bamba Dieng. mu des mu des ñaar. mu des ñaar nga génn si waaw. ñu woon ñaar rek nga génn si. Papis Demba lay nag. Papis Demba lay man Papis Demba Cissé. waaw Papis na kooku yàgg na yàgg na ñu fi ne instant bi ñu jël coupe d'Afrique ñu jël coupe d'Afrique am nga ñett. am ne xaw ma leen. am waaw ñëwal ñëwal rek am nga trois am nga trois mu des ñaar. booy booy booy noppil yow gaynde yow noppil ñëwal ñëwal ay waay ay waay jàpp leen ci bàyyi ma tànc booy bi bàyyi booy bi ñëwal kan noonu kan waay kan noonu Ismaïla Sarr Ismaïla Sarr Ismaïla Sarr mu des benn am nga quatre mu des benn benn rek moo des jàpp leen benn kese moo des nga génn ci oh benn kese kese kese kese jom nga de. non dafa am ku ma bëgg wax ni quoi kan la ko kan la. gaa yi noppil ay waay gaa yi gaa yi may leen ma ko may ma ko may leen ma ko rek bàyyi leen ma ak moom rek. tur bi moo génn sama xel. waaw kan la kan la léegi kan la. góol bi quoi. tudd. mu tudd yow doo nante sax waaw góor bi mu tudd góor bi mooy mooy njaago bi njaago bi mooy njaago bi njaago bi waaw te mu sol numéro numéro lan 16 du Mendy ah Mendy génn nga ci sa am nga cinq joueurs Sénégal ah, kan mooy sa joueur lu tax muy yàgg ay mbir sax kan mooy sa joueur kuy sama joueur ñoom Sadio Mané ñooy sama joueur. Sadio Mané mooy sa joueur ah. préféré àdduna wërngal këpp. am na tamit koo xam ne mooy sama joueur avant Sadio Mané Ngolo Kanté. Ngolo Kanté. Baba Niang fii la dëkk. kuy kooku kuy kooku. maanaam <laughs> dinañu ree mais. ban ban ASC lay joué. dama gis loo xam ne si moom nekkul sax. ASC ban la. ASC Jaxaay lay naan ko Ngolo Kanté. dafa mën football boo xam ne bu tee waaw yow kon seen ASC Jaxaay bi kon am na joueur yu mën football am na ñu mën football mais man moom laa ci taru tee ko nii moom mooy sa joueur préféré waaw Baba xam naa bu seedaanee lii dina kontaan waaw Baba Niang mooy sa joueur adduna wërngal këpp ak di booy fa ne tamit ñoom ñëpp a tàng samay joueur lañ mais da ma taan lobel ma ne la Baba Baba Niang mooy sa joueur rakk ji fan moo la gën a neex ci Sénégal ban koñ ban quartier ban gox ban dëkk ban bërëb fan moo la gën a neex ci Sénégal bi may juddoo dafiy yaroo defee fi lépp mooy sama. déggoo sama question de dama ne fan moo la gën a neex ci Sénégal Sénégal fan moo la gën a neex ci Sénégal nga ne ma. Balie 11. Jaxaay. waaw ku am Sénégal Jaxaay moo la ko gën a moo la ko dàqal. sànq moo ma dàqal ndax li may am yëpp fii laa koy amee. Jaxaay Almadi. waaw fépp. mais fii daal li ma jaxaay almadi fu la daaxal fii li ma fi am aw ma ko fenn jaxaay almadi fu la daaxal fii moom a daaxal jaxaay jaxaay jaxaay mariste fu la daaxal fii moom waaw yow fii daa xool maris jaxaay jaxaay yoof fu la daaxal jaxaay Medina fii laay safoo moom a daaxal fu am ci Sénégal jaxaay moo la ko daaxal moom a daaxal parce que man bu may xëy di gis nii rek sama xol day sedd question bi leer na réponse bi leer na boo doon tukki fan ngay dem ban réew moo la gën a neex ci àdduna bi man hmm. boo doon tukki gars yi boobu tontu boo doon tukki fan ngay dem ban réew moo la gën a neex ci àdduna bi am na réew yu ma neex mais bu ma soñoon damay bàyyi ñu leb réew yi rek non ñëwal ban yow boo doon tukki tey sa rêve mooy dem fan tay bàyyi ko mu ñëw addandata Allah na ta Allah na ta Allah na ta mooy fa mooy Atlanta Atlanta boo doon tukki Atlanta ngay dem Atlanta Atlanta Atlanta boo doon tukki Atlanta ngay dem d'accord ba tey ci question réponse ah ba tey ci question réponse instant bi ni may xaj yow instant bi ni may xaj yow nga liggéey tekki dal ci alal ju bari la nga ci njëkk a def instant bi nii nga liggéey tekki am alal ju bari dal ci alal bu bari njëkk a def lu ma si njëkk a def waaw man samay ñaari waajur rek sa ñaari wayjur bu loolu jàllee mafia bi ñaari wayjur nga njëkk a teral ñaari waajur après après nga jublu ci mafia bi ñoom sax amaana dañ leen di defal rek mais dina jafe quoi parce que ñoom non dañoo taxawu quoi barki Sëriñ Bamba fatt côté bépp nanguñ dara laal ñu lu ñëw bëgg bëgg bëgg maa laal si ñoom lañ njëkk a dal instant bii ni may xaj yow nga xëy un jour lu ne la am nga benn baat ci réew mi loo tere ñu jële ko fi lan nga fiy jële benn baat boo ne lii jële leen ko fi ñu jële ko fi bu ma nee lii nii jëlee leen ko fi ñu jëlee ko fi benn baat benn baat boo ne lii jëlee leen ko fi ñu jëlee ko fi. kiiroo beeg ŋaayoo maanaam maanaam. kiiroo beeg ŋaayoo bi daw. kiiroo ŋaayoo maanaam jugee rek. maanaam di daw ñun. maanaam réew mi fi mu toll. waaw politique bi. waaw kiiroo beeg ŋaayoo bi. manifestation yi. moom nga fiy jëlee. benn baat da naan réew mi na delluwaat nekk ci jàmm waaw réew na delluwaat nekk si jàmm di ko laaj si xam ne suñu réew la waaw su neexee bu ñu nekkee si jàmm suñu réew la xale nga waaye waxi mag waxi mag ngay wax de loolu la fa demee eh, rakk ji bi nga juddoo ba tey ji ma wax ak ban jour moo la gën a neex si àdduna ak jour boobu lan nga dund man ban jour may gën a neex si àdduna waaw jour Touba li may def dafa garaaw jour màggal dafa garaaw bu ma demee Touba semaine bi yëpp la sax mais jour bi nga laaj ma ma jox la jour màggal mais bu ma demee Touba leneen laay doon. d'accord waaw loolu. daal bàyyi faal nga. ba tey ci question réponse bi nga juddoo ba tey ji may wax ak yow moo la gën a métti ci àdduna. ban moo ma gën a métti. ak ah, jour boobu lan nga dund. jour boo xam ne da nga yëg naqar tiis nga xam ne am nga la métti ban jour la. tiis. jour boo xam ne métti na la. man nag ni may gisee. Hmm. yooyu noonu dama ko kii quoi dina am lu ma métti mais bu jeexee rek jeex na. dafay plan waaw mais jël ci benn séddoo ak ñi lay seetaan. boo xam ne yëg nga naqar xam nga lu la métti ban jour naa ne na loo dund yéen ñëpp naa ne am na loolu dund ci àdduna ne tey ko fàttaliku. waaw nga ne non jour bi la am naa lu ma ban ban jour jël benn rek séddoo ko ak ñi lay seetaan. yow loolu nga gis. waaw benn rek benn rek jour boo xam ne amul la naqari jour boo xam ne yëg nga naqar yëg nga tiis ci sa xol. ak loolu benn jour daal léegi rek maanaam ma ñamal la bëggoon na ànd Medina benn jour. waaw benn oto taxaw fii ñuy dem Magal Touba man la nga am si bi di jooy. c'est ça loolu li mën na te maa ba tey mu ngi sama xel bi. da bëggoon dem Touba. bëggoon dem ñu ne la doo dem. waaw ñu ne ma doo dem sama rakk ji dem. ma topp si oto bi lang si porte bi. amoo amoo woon nee nañ ma sax dañ lay yóbbaale xam naa ba warul dem la woon mu naqari ma lool. may jooy. kon daal yow màggal Touba da laa jëral lu bëri. waaw ba tey ci question réponse rek ji mbër yi nekk ci kaw mbër yi làmb ji mbër yi nekk ci kaw au sommet. Mhm. kan nga ci rêvé un jour nga war a bëreeg moom ñu nekk ci kaw a kaw. ñu ma si jox ma ci kenn koo xam ne bëreeg moom da lay neex. ma jox la si kenn. waaw. ma jox si kenn. koo xam ne bëreeg moom da neex. bu ma sañoon moom bu ma sañoon damay pourbe fët fët dem fekk fa ay tafaatin tafaatin da ngay reebe ba rek tafaatin fët fekk ko fa tafaatin ngay reebe un jour at bi génn sa diggante ak tafaatin nga war a bëri moom ko fa waaw mais xam nga la la fa yóbbu tafaatin la la fa yóbbu lan la fu mu nekk dama fay yóbbu jom ak fulla la ak fayda jom fulla fayda fi nga war a jëm teg fa sa tànk te dinañ fa jëm te dinañ fa àgg incha allah voilà qui est clair noonu la fa demee Sénégal jox ma tànn loxo rek moom dafa tàng day dóor. dernière question dernière question Fils de Aldo soo nekkul woon mbër lan ngay nekk joueur football ngay nekk boxeur ngay nekk basketteur ngay nekk. boo nekkul woon mbër lan ngay nekk boo nekkul mbër. ma nekkul woon mbër ki laay doon. lan noonu. kuréel kat. kuréel la. kuréel kat luy loolu. kuréel kat xasida yi. Ah, ok ok yi. is laay doon. Hmm. waaw moom laa bëggoon doon ak sama liggéey ma téye xam nga rek maa ngi koy dund nag. ni ma ko war a dundee di ko def ni ma ko war a defee mais maa ngi si làmb ji quoi. xëy yàlla ni la ko bëggee. noonu la fa demee mais kon yow mën nga ay xasida ay cant yooyu boo téye micro gars yi xam ne. bëri bi bu daajee nga xam ne daajkat la man damay ay sikarkat. très bien ça. ak Serigne Ba moom baa la ci rek day téye maa yi di def moom moo si nekk. très bien ah, moom moo ne sax day day day téye micro dañuy def lu garaaw. mais man dama yëngal mais xam nga rek. sant dafa am leneen loo xam ne gën na maa yàlla na jàmm yàgg rakk ji c'est comme j'ai l'habitude de le di yem ci benn épisode yow c'est la première fois may déplacé wu ñëw seet si la mhm. mais xam naa du mujj tey ah mhm. li ma indi woon ci question nag fii laa koy yemale ñu waajalaat leneen incha allah lan ngay tàggatoo maa ngi tàggatoo di sant sama ñaari waajur mhm. waaw di nuyu fi ma fekk si nii muy jaxaay di nuyu waa Kër Massar xam nga Tivaouane Pël La Linguère di nuyu lépp jaxaay bi yëpp lépp lu ko ëmb maa ngi nuyu ñëpp waa parce que ñun bu buñ jugee ñoom ñëpp ay jóg ba Serigne Bamba Mbacke fépp daal ñaaxorob Tivaouane Peulh aliya yi lépp ak Serigne Bamba Mbacke di sant waa Fouta tamit dañuy jàpp si làmb bëre dëgg très bien mhm. ko ko bandu waaye gars yi ma daan ñibbi si mais dafa mel ni falaa doon bëree ak Serigne Bamba mhm. gars yi di tëgg mel ni bàyyi bëri dafa la war a wàcc si tey xam nga mhm. maire yi fa nekk paa yi di ñaanal ñoom ñëpp jàmm ba Serigne Bamba Mbacke mm-hmm. di sant sama benn booy ñu naan Seydou Waale Eden Azar mu def salmin maama rek yetta maa booy très bien an kaan ne doom moo jo booy bilaa wallaay maa ngay nuyu di ko sant baala parce que ma defal ku ne da moo jo woon na yàlla yàlla yóbbe yàlla yóbbe dum dum yàlla yóbbe ndatan ala ma fof yalla waɗanen jaam salmina gallo e fof mhm. sarel naaɓe fof don naaɓe wallahi allah mhm. onon jam tan daña toon ba seigne bamba jam boy wa santal ñep santal gërem ñep bu faté kenn xam nga di santal di ñëwaat ci wa koñ bi mhm. ñom lu tax ma duggal leen ci sax ñom ñom ñoo ñooñu dama fa dem di bëre ji fofu non wa fan dem liggéey fouta nek fofu di top lamb yi yenn business yi di fa fekk fa sama yaay sama papa yo xamne ne wala nga naan déedéet ndax niñ may taxawoo. barki alxuraanul karim dëkk bi ma sant léegi doonu la moo tax ma sant ko kenn moo tax ma sant ko muy mbës mi. ak sama papa Abbas. mbës man muy kaaw maa ngi koy sant. Mm. booy bee toog. Mm. dafa baax ñëw xam nga. Mm. fekk ñu fi wàccee ba fa ba tolloo ñun di ànd man lu ma ko wax loolu lay def dama ko yónni mu dem. ak papa Abbas mi fa nekk di yëkkati ay teraangam di ko def si man muy kaaw. illaa wallaahi wa taala di ko ñaanal jàmm. ay ama seen xaalis la ñu ko di nga def si gone gi yaakaar kon nag ñoom ñëpp maa leen nuyu di leen sant di leen ñaanal jàmm di ñëwaat di sant sama waa koñ ku si mel ni Sali gaa mhm. gars yi dañuy sonn suñu làmb yi ñoom xujja jigéen ñi màgget seen mafia boobu ñëpp maa leen sant waaw mënu ma toog di lim ñëpp mais su ma nee xujja màgget xam nga ak yenn business yi rek ñoom ñëpp dinañ jàpp ne war nañoo jàpp ne ñoom ñëpp laay waxal mënuma toog waa di dem temps bi may ñu ko mais ñoom ñëpp maa leen sant seen mafia bi gis naa ni ñuy taxaw si lamb booy dañ lay dooleel ba boo génnee sa gaale doo tiit amoo looy ragal jëli ju ko rek ngay gis suñu lamb ji passé xër bu ëpp sax moo ñu ko ñaapaloo bilaay wallaay seen écurie di sant ñëpp di sant waa écurie bi mm-hmm. ay borom baax fa nekk mm-hmm. boo ñëwee entraînement ñu ñëpp lay jàpp école luñ booy sëy parce que yàlla mbër yi ne onze de fii caatu jaxaay papa sita njaase yoore ñoom ñëpp tout ba si sëy mu mag. ana booy sekk mu ngi fi. booy sekk mu ngi fi. booy sekk mu tamit gëj gëj na bëre de. gëj na bëre de gëj na bëre mais bëre rek la bëgg mais yàlla baax na bàyyi. Mhm. ba sëñ Tuubaa di leen nuyu ñoom ñëpp ñoom nëf. Mhm. ñoom gis kara bàyyi gaa yëpp ak xam rek Kaza. gaa yi fa ñoom ñëpp si defet lañ jóge fan yi. Mhm. mais mais booy booy sëy moom booy sëy moom assuré na ko. waaw booy sëy assuré na ko dafa gëj a bëre. toog lu yàgg bëriwul toog lu yàgg bëri boo fay toog na fi deux waaw waaw gën na bëri de waaw mais ñëwaat na signé le retour avec la manière am na victoire ci kaw Cheikh Super Jamono instant bii nag dafa waroon amaat bi di ko ñaanal yàlla na yokk mhm. di ko mhm. Super Jamono turam Super Jamono yàlla champion la muy am loolu dañuy dégloo mhm. te buñ sañoon sax du day dem di ko jëli ji di ñëw <laughs> ñun tamit ñuy dem di ko jëli ji di ñëw mooy seen mag yéen ñëpp waaw instant bi booyee dañoo boo xam ne ñoom ñëpp xam nañ ku si nekk li la war mhm. ñun ñëpp a yam am si luñ jugee dañoo war a góorgóorlu jëli ji war te incha allah dinañ ko jëli ndax xam naa bu dee jom ak kii rek ñun am nañ lépp waaw kon la fa dem santaat mafia gerte gi mhm. ak sëñ Bamba mafia gerte gi booy ndaw yi ngay gis nii booy jàmbaar lañ lamb bërre barki alxuraan booy ma ngi taxuñu may xalaat ndam ba ma daanoo arène nationale ba ma jugee ñoom laa njëkk a xalaat booy dañuy ñëw man leen dama koy jëli ñëw bu leen ragal dara te ñoom dañu ragal dara jox ma bopp barki Serigne Touba Mbacke ma fi yaa gétti gi di sonn si man di ma defal yoo xam ne man sax du ma sib barki at di leen sant ñoom ñëpp waaw bu borom daaru bi barki Serigne ba sonn Zarko ñoom ñëpp maa sant ak Baye yëpp Ousmane mm-hmm. booy ndaw yi loolu boo yéex a moom ñi dafa am loo xam ne daf ma warloo man ak ñoom sama diggante ñoom te dama ko war a def force ndax lu nekk lañ may defal ñoom ñu ngay ñooy ànd ñoo bokk lépp ñoo bokk mafia bu la dara doon laal ñoom ñoo lay protéger balaa lool di ñëw si yow si ñoom lay njëkk yegg di ñaanal boo yëpp jàmm di leen sant baay ñoom Milo ñoom Abo ñoom jamono ñoom yeyaa xamoo ñoom bas kele nit ku baax la ay sëñ Bamba di sama mbokk di sama deret xam nga mhm. nangoo sonn si man ñoom day man ñii rek laa am amuma ñeneen barki alxuraanul karim mhm. booye liñ may defal mënu ma toog sax di ko wax mais dama leen di sant te mu ne ma wax bu baax mhm. son ak Serigne Bamba ak njool mi ki mooy njool mi mm-hmm. séeri kooku noonu eh mm-hmm. ak sëñ ba di sant son sant son bu baax a baax waaw sant Mamadou Mamadou ndaam démb barki sëriñ Bamba barki démb sareetam la ma teg moom yóbbu entraînement booy boo booy amul lool de danga fii daf doon ay sareet lañ yor dañ la ciy teg ne la aca yox la yóbbu la dina toog di la xool ngay liggéey buñ pare ñuy ndiwàl la kon ñun amuñu seen fay mafia bi yëpp ñoom Mamadou Ama ak mafia booy jigéen ñi nag tasaar <laughs> bi fële <laughs> ñoom Fatou Mbaye ñoom Kaja <laughs> ñoom Mama ñoom booy booy yooyu yëpp maa leen béggee booy yëpp nag mafia bi yëpp ak Serigne Bamba Mbacké ñoom satu booy yëpp yëpp mais boo limee da ngay juum ak bépp mafia bu nekk biir jaxaay ñëpp di sant ñëpp di sant waa jaxaay di sant maire yi lamb yi taxaw nañ ma ñaanal nañ ma ba sëñ Ba ma nguloo kante ma ma daal maire am maa ngi sant di sant maire Papa Cité bu baax di san sama meru koñ yi ni barki yalla ko ci melni mer faara ta am soxna mer yu bari di sant ñepp pay ñaanal nañ ma pa kebe diko ñaanal jam bu baax suñu chef de quartier barki alcorane lamba jom taxawé tay dafa ñew tay amul lu ci fekkante dew ma kërëm ben yoon billahi wallahi wa taala mu ñew fekk ma may ma bu ma ñew sam père jom mo dama li lii sa maam la ko jox barke yalla ma bëgg si kontaan si xam nga jël xaalis am lu ma ci def te lamb ji jàllaat na tamit mu ñëw defalaat ñu leneen barke alxuraan karim di sant bu baax di ka ñaanal gudd fan ak wër gu ak imam di leen nuyu di di leen ñaanal gudd fan ñoom ay borom baax lañ di leen sant ñoom ñëpp di sant grand mu taali bu baax day jàpp suñu lamb yi ay kaar la ñuy may bu ñuy bëre ji barke alquran karim képp ku ñuy jàppale ñu ngi lay safoo di la ndamoo bilaay walaay te gëm nañu tamit day ñëw léppay ñëw incha allah parce que alxuraan kay di leen sant ñoom ñëpp. di sant sama waa koñ. di mhm. sant sama waa koñ képp ku yeewoo jaxaay maa lay sant su ma ak 11B amul ku ma bàyyi man waa noonu la demee boo yëpp moo bëgg. parce que mhm. Serigne Ba koo xam ne a yow yéen i géem yi ñëpp neex laay wax lu ma neex laay rafet na ak sëñ Bamba. jàmm si yow ay borom baax lañ dañ ma xaawan. aja sama gars yi sama ñaari waajur. Mhm. di lépp loo xam ne lu ma fi wax. lu jaarul yoon la maa ngi jëw di sant tamit sama famille mm-hmm. samay mbokk waa mm-hmm. Jurbel mm-hmm. Papa Fallou di sant Seexu Yàlla Ousseynou Assane di sant ñoom ñëpp di sant sama mbokk yëpp barki alxuraan di sant àdduna jaajëf rafet na jàmm ci yow sama gars yi l'émission tire sa fin tey ñoo ngi woon fii ci jaxaay seen émission après combat Abdal Abdal maa ngi toog bari Serigne Bamba boobi xel bay fattu mais bari sëñ Bamba di jàmbaar góor yàlla réel <laughs> ñoo doon ànd di def lépp mais fan yi dafa daanu ak sëñ Bamba Mbacke di ka ñaanal bu baax fi mu nekk noonu an ko yàlla génne jàmm yàlla na ko yàlla génne jàmm mhm. te noonu lay demee sax muy Baay Faal parce que alxuraan lamb ji ni la ko doon waajee mais xam nga rek mhm. a jaam ak pexem li ma lay wax rek yàlla dogal jaajëf mais du du du ñàkk fay daa fa dugal dara mais nit ñi nag seen wax la ñuy di wax rek mais ñun ñu sant yàlla xam nañ fi ñu jëm te dinañ fa àgg te xam nañ ñu nekk yi yàlla baax suñu borom dinañu ko. ayca sama gars yi comme